saisie mhm. par toute personne physique ou morale te itam nag tey bi nga xam ne Serigne Bassirou Gueye moo ko jiite mhm. am na possibilité wu jàppalu euh, koo xam ne dañ ko tuumaal mhm. euh, placé comme même en garde à vue demander à que ñu téye ko le temps que enquête bi di wéy loolu ay changement yu bees la yoo xam ne indi nañ ko ci loi nag bi yow nekkoon nga justement directeur exécutif bu forum civil donc mbiram corruption xam naa ne euh, war nga ci am taxawaay coppite boobu déjà noo ko jàngatee Euh, hmm. am nañu yaakaar ne mun na ñu jaar foofu pour teg loxo ñaari juge yi hmm. euh, teg loxo aussi le premier ministre Amadou Ba bi nga xam ne moom la ñu tuumal ne moom moo leen moom moo leen korom est-ce que bu ñu yeggee ci loolu hmm. ce qui peut arriver à tout moment d'ailleurs euh, du ñu yegg ba tey ci départ processus électoral bi reprend tout mun na nekk arme en tout cas waaw li nga wax ni lu mën a nekk la dans les tactiques et stratégies politiques tactique de caniveau yi nga xam ne nit ñi koy def cest à utiliser tous les moyens pour vaincre un adversaire parce que coppite OFNAC bi c'est vrai euh, bi ñu koy def ñu ngi koy def ci situation boo xam ne ne man man dama gëj a dugg sama bureau <laughs> liggéey laa def depuis Macky Sall def mm. déclaration bi c'est-à-dire su kii fa laay gën a nekk sax yow waa bureau sax duñ ma gis lu bari ma leen di jéggalu donc mais quand même am na lu am solo li nga wax nii ci loi OFNAC ñu dañu yàgg laaj ñu renforcer capacité nag parce que la lutte contre la corruption dafa manqué efficacité te loolu man dem naa ci ba gëstu ko ba bind ko ni en réalité c'est une volonté c'est voulu comme ça par l'autorité ñoom ñoo bëggul nag am doole dégg ma aussi bien ci OFNAC nu muy fonctionner ci ñoom ni koy traité ak choix ak renoncement yi ñuy def ci nit ñi koy diriger loolu ma waxtaan sax ñëpp ba ci Bassirou ci bureau wax naa ko da ko yow ñu fal la dëkk président nag daf ma jaaxal parce que yow mënuloo nekk procureur rapport of nag yëpp ñu réew di ko jébbal mosoo ci laal dara ñu ñëw jël la léegi nag teg la président yow yaay di di di exécuter enquête yu ñu war a def et cetera et cetera pour man ça c'est un acte de sabordage du président Macky Sall bëggul OFNAC def liggéey bu mu war a def dégg ma mm-hmm. donc loolu dama ko xam léegi beneen affaire mooy li nga wax dëgg la cest dire yokk seen pouvoir ñoom ñu jóg coppam moom daal di euh, daal di d'abord amoon na capacité autosaisine avant amoon na ko ba pare dafi enquête ensuite mais fi mu limité woon mooy su xasee ba jël rapport am jox ko procureur wala mm-hmm. yem donc procureur moo war a àggee mm-hmm. donc toute l'impunité bi amoon ñun procureur lañ ko doon teg te procureur bi kan la woon moo doon Bassirou bii nii nii beneen affaire bu ci am mooy jël jël euh, mandat waa OFNAC bi nga yokk ko parce que la woon mhm. renouvelable une fois mu jeex léegi mu yóbbu ko ba cinq ans. remettre les compteurs à waaw ñoom ñu loolu tamit lu doy waar la ñu amaguñu jot liggéey ci ndax li nekk fii nga xam ne moo ñu. <laughs> moo ñu occupé taay yi mais loolu foog ñu xoolaat que ñu jàpp ne am na rapport ak. Euh, foog ñu xoolaat ko parce que am na ñuy rumandaat aussi am na lu bëri lu ñuy wax. accusation corruption yi gars yi bàyyeeguñ ko ñëpp xam nañ ne diggante Macky Sall ak son premier ministre am na lu fa xew boo xoolee nag le retard ci signé génn décret bi mu defoon. parce que mm-hmm. décret boo xam ne premier ministre daf ko war a compte signé nga soo koy publier. Mm. ba lundi soir jour bi député yi voté loi bi la ñu soo gis décret bi. Mm. am na lu xew seen diggante ñoom nag seen cuisine interne la bu ñuy gérer seen biir donc xam naa ne am na lu nekk ci biir loo xam ne génnaguñu si ñoom. Mm. parce que booy seet affaire yi dëggantaan. man depuis Macky Sall ne Amadou Ba mooy seen candidat man gisuma ni Macky Sall yéene na Amadou Ba bi mu gagné élection yi ci ay taxawaayam moo tax ñi wax naan ndax bon lii sax bokk na ci galgal pour changer candidat xëy na am nañu dëgg mais nag mënuñ ci wax dara ñun tey jii nii dañ xaar li ci kanam dinañ xam li xew. mais sànq tudd nga fi psychologie euh, nga ne boo ko xoolee ci wàllu psychologie am na looy gis ne que peut moo tax président bëggul jox lenge yi Euh, ki ko war a wut. ne nga def nga tuuti psychologie. dama ko jàng am si diplôme. sa analyse bopp voilà am nga ci diplôme. sa analyse bopp lan la la jox au plan psychologique. man gis naa ne non non c'était sur ce cas précis. mais xam nga nit buy doxal tamit euh, ngay apprécier di nga mën a xam ndax lii sawar na ci wala sawarul te loolu éléments yu bari ñoo la koy jox am na le langage corporel am na beaucoup de choses yoo xam ne da nga koy étudier pour xam. ndax gis naa ne li ma gis mooy Macky Sall mii diis na ci moom moom mu toog affaire yi jeex mu jël affaire bi lenge bi jox ko benn moroomu sénégalais bu ñu fal te surtout sax am na foo xam ne ni yaakaaroo lu fal la war a mën a jóge te Sénégal nekk nag ñëpp xam nañu ni mu demee. ñëpp mm. xam nañu tey opinion bi. ban orientation la am. Mm. on a vu bi bipolarisation bi fi yàgg am entre Macky Sall et une certaine opposition. dégg nga bon loolu gis nañ ko mu ngi fi taxaw. ah loolu lu si weesu tamit mooy candidat bi. wax dëgg fa dèjà jour bu ñuy cité candidat am sax moom dafa sol masque. daal di jël affaire bi jox ko président Macky ak yeneen yu bëri yoo xam ne ni wax nañ ko ci suuf. ci ah. digganteem ak yeneen candidats yi ak ñëw xam ne ni. xam na lu mu leen waxoon. Mm. ñu gis ne finalement du loolu moom mujj nekk et cetera. donc euh, comme si dëkk bi la ñuy nekk aussi di analyser ay information yoo xam ne ni yaa ngi koy jot. ah yaakaar naa ni daal euh, li Macky Sall waxul dëggantaan lan moo tax mu jël décision boobu. parce que décision bi garaaw nag garaaw boo xam ne ne pour man nit ku ànd ak sa sogo. doo ñëw ba à quelque deux mois nga war a joxe pouvoir bi nga créer situation de crise bu mel ni non loolu waxul lépp moo tax ma man yii nii gaw ma ko pour man il prend du temps il est en train de prendre du temps. dinaan nooy nañu dialogue ak et cetera mais lu mu bëgg dëggantaan waxagu ko waaw mais yàlla yàlla jàppale nag hmm. Sénégal doon dëkk boo xam ne hmm. ci jàmm lay nekk <laughs> kenn duñu ko yàqal hmm. parce que benn nit warloo ñëw ah, xool sa intérêt bopp rek wala intérêt ñi ngay àndal wala ñi nga faral ah, tout simplement euh, mën nañ nekk sénégalais mën nañ bañ nekk sénégalais ah. ah parce que aussi y a le phénomène de capture de l'État ça c'est une réalité qui existe dans le monde il des groupes organisés qui capturent nos États à travers des individus qu'on place au pouvoir yooyu tamit des réalités yoo xam ne ni ñun dañ koy. est-ce loolu la doon bëgg a junj bi muy wax force organisée. wax oh, xamu xamu ban force lay wax de moo tax ma sax dem naa ma ne est sax moom xëy na moo ànd ak force yooyu. parce que vraiment dafa doy waar quoi dafa doy waar. Euh, parce que Sénégal am nañu quand même benn une certaine stabilité c'est vrai il y a kenn kenn kenn terewu ko. y a mais nag Sénégal aussi am na lu ñu am aussi. Euh, pour euh, pour pour di aar suñu bopp moo tax waruñu créer situation de crise boo xam ne ni day féewale sénégalais yi néewaluñu doole ku dal suñu kaw dañuy mën su boobaa hmm. loolu nag moom warul nekk kuy hmm. créer situation lan mooy ci thèse boobu ñuy commencer développer mooy maintenir la liste des 19 donc respecter la décision du conseil constitutionnel mais ubbi à côté beneen procédure buy may peut-être yenn spoliés ñu mën a dugg dans la mesure du possible peut-être conditions yi su boobaa dinañ ko définir loolu war a mën a nekkee te dégg naa ci discours am dafa mel ni mu ngi bàyyi brèche boobu mais man gisuma loolu nan la war a mun nekkee naka la conséquence war a accepter ñu ne waa d'accord genre repêché quoi hmm. ay candidats ñu dugaat loolu man gisuma ko parce que quand même euh, loi électorale moo organiser affaire yi étape par étape mais étape yu njàll ba pare mënuñu si delluwaat lekkee fi mu toll nii dix-neuf la ñu am waaw dañ fexe ba même bu dee dix yooyu ñu su bëri gis ñu seen bopp mais loolu lañu am nañ ko bàyyi ñu dem kenn rek lañ ci mën a fal xam nga waaw loolu nañ bàyyi procédure bi mu continuer tout simplement euh, parce que fi ñu àgg nii euh, dëppaat ci gannaaw loolu parce que loolu boo ko waxee nga ne pour la pourquoi nga ne parce que da nga bëgg élection inclusive <laughs> mais est-ce que ça veut dire kon nañ bàyyi dix-huit de sénégalais yëpp nekk candidat bu dee inclusion lay wax mooy ne ñëpp bokk est-ce que loolu mën na am loolu mënul am donc loi bi nag kenn rek moo koy nekk di ko arbitraire moom lañ ko jox muy lu ñuy wax le juge électoral mooy conseil constitutionnel man daal lu ñuy wax kon foofu lay at bu fekkee ñoom am na porox ndoll bu ñu def ba wax ne lii mën naa nekk mm. ah man acca ñoo ko wax dañ dem mm. mais du kenn moo war a décider à cette place à leur place d'accord Cheikh rapidement ci euh, conseil constitutionnel ak tuuma yi ñu tegoon ci kawam mais brèche boobu aussi ñu tàmbale ubbi président tam mel ni ku ko dàqul mooy maintenir cette liste et peut-être en rajouter. la liste des 19 candidats loolu laa wax sànq rek dama ne la liste des 19 candidats ce leur faire une injustice tey. ñu yokk ci ñeneen ñu wàccee liste bi d'abord maanaam ñu neenal ko. non liste boobu am nañu wax ne mun nañ ko maintenir. mais ñu ubbi à côté